xanaa ñu njëkkanteeg waxtu rek ndax xam naa timis si jot na di yëkkati kàddu yu nuyoo ak cant ak ngërëm ñu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu si Serigne Touba di ñaan mu yàgg ci loolu te ànd ak wér ñaan yàlla suñu borom mu dëgër ko kàttanal ko ba mu àggale mboolem ay naalam ak yéenam ci yoon bi yëpp di yëkkati ngën jaa tedd nuyoo di ko ci teg ci loxol sëriñ Xaafi Buso mi nga xam moo jiite daayira Muqaddamatul Xidma ak mboolem ñu ci ànd ak ñëpp nag di leen sant bu baax ci turu sëriñ bi ci seen taxawaay bu rafet ak seen jiite ni ma ko daa waxee rek yàlla def na yéen am féex yi sëriñ bi jegleen barab bii nga xam ne mooy fi ku gën a ñor yàlla def muy barab bi mu dëkk wal tutulli thamma iskaana rabbi stajib wal tukammin maana way tudda tuubal liggéey tuubal la de fii ka tunda fii ka bunyaana kon sëriñ bi fii mooy dëkkuwaayam bi nga xam ne tudd na ko ci xasida yi lu bari te kenn séentuwu ko nii kon bu yàlla defee ngeen am itam am tawféex ci suñ borom tànn leen ci barkeb sëriñ bi ndax sëriñ moom mooy tànn ñu koy liggéeyal fii rek dara jiitu ko ci liggéey bi kon nag bu leen yàlla defalee ndimbal ak tawféex ngeen la laxasaayu dëddu àdduna sànni lépp jël seen lépp jox ko sëñ bi soxlaatu leen dara te xoolu leen dara lu may ngërëmu sëñ bi loola sëriñ bi da leen ci sant leen ci gërëm te yàlla dafa def seen posture ak seen taxawaay bi mu xam ko ànd ko yéen lu yàgg te ni ko wut bi mu nekkee Serigne Touba itam fu mu ko fekkoon rek mu gën koo yëkkati gën leen a jàpp lépp lu muy defee du woo leen bëgg ñëw mu ànd ko yéen loolee nag seen taxawaay tax ndax ba ngeen tam leen liggéey ba nëgë ni liy firndeel ne Serigne bi nongu mooy mosu leen cee def loo xam ne kenn rafetlu ko wala ko xam rafetlu nag yal na liggéey bi ak ci seen loxo ndam li ngeen ci am ngeen am ci ndam yu ko ëpp fuuf ci seen kanam kon taxawaay bii ngeen def ci màggal bi. mooy dalal gan ñi teertu leen dalal leen taxaw leen ba liggéey bi jeex loolu doy ne sëkk ab liggéey ñaan boole ci jumaa ji muy ñaari liggéey di si yoo xam boole waaye lépp seen principe ak seen taxawaay mooy na ko koy kon ñu ngi ñaan ci parce que suñu tubaab mu koo nangu te liggéey bi gën di ak seen loxo di gërëm it ñi ngeen liggéey bi di Serigne Cheikh Mbacke mi Cheikh Mouhamadou Mountakha dégg nañu kàddu yi mu wax fas nañ ko yéene bu baax itam di ko ànd ak yéen ndax loolu de xalaat yu am sol la xam naa jataay bi xat sax kon ma jaaraat ci dama waxoon waaye dañ koy rafetlu ci ànd gi ñu ko ànd yéen ndax liggéey bi génnul lii kon ñu ñaan yéen itam ak ñu ko ànd yéen a jën ci am yàlla dimbu ci barke suñu Tuuba di gërëm waa daayira Rawdu Rayaahiin ci njëtal sëñ Ahmadul Badawi waaye ci teewaayu sëñ Seexuna Mbàkke Abdul Wadoud mi nga xam ne moo teew ci seen tur te ñoom itam ngeen àndoon ko ñun liggéey bi ba yaa def lépp sotti ba tey jii di su tàggatoo bi kon ñu ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa nit ñi fi teewe ren ñu teewe fi na ngeen déwér jàmm te kenn bañ a manqué te yitte ju fay àndaaloo yàlla faj ko jàngalu ju fay àndaaloo suñu borom saafara ko yitte yii sëñ Abdou Lahad wax léegi itam dégg nañ ko bu baax xam naa bu weesoo ñett fan ñeent rek dañ ci bokk toog waxtaan ci ñu xool nu ñu ko mën a taxaw ba lépp sotti ba ni ngeen ko bëggee ngeen amee ko noonu ndax fii kat ñoo war a jiit ci soxla yi yitte yi kon incha allah ndégam dégg nañ ko rek danañ fexe ba loolu moom saafara incha allah. di sant nag daayira yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi ak ñi ci biir dëkk bi te ñëpp ànd ak yéen liggéey bi di ci soñ ñoom itam posture bu ñu ci amoon ñu fexe ba yokk ko te xam ne liggéeyee Sëriñ Tuubaa la ak Cheikh Ibrahima Fall daa wax rek. du wàcc kenn te war na ñëpp donc yàlla defal tawfeex nga liggéey sëriñ ji fii war nga caa gën góor doole ca passif salaamaaleykum wa rahmatullah saarifal hilmati li rabbi taala rajiyan saq yahu bihima imaini masikan bil kitabi maska daririn biyadil xaidil basiril muini wa huwa yidi wa rimati wa kunuzi wa تجن قياد الحرون من به راب مرود بن حنيد